alxaaji muhammad al amin baara mbakke xalif général de Mouridiya di nuyu xaratu mbakke yëpp képp koo xam ne bokk nga ci maam maaram yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jot li nuyoo de Tijani Cheikh Mouhamadul Mansour Sy ak usratu Malike yëpp Diouf Rahman yi fi teew ñépp yàlla dong tax jóg wuy si ki woo ci yàlla muy Mouhamad Lamine Baara ci bis bii nga xam ni maamam la ko yàlla jox muy màggalu Tuuba Eh, di sant it conférencier bi jox na ko àqam eh, thème bi it dëgëral na ko indi na ci lu bare bare bare bare bari na it deru Cheikh Ahmadou Bamba ci woote bu rëy bii mu woote setal na it muridisme ki ñu ci bëgg a boole lu ci bokkul kon conférencier bi il faut ñu sant ko il faut ñu gërëm ko il faut ñu ñaanal ko yàlla ndaxit it musul dañ di am ñoo xam ne yàlla moo leen di tax a waaye foo fekk koo xam ne yàlla dongoo la tax a jóg il faut dana am koo xam ni seytaane ko tax a jóg mu ñëw bëgg a dugg si ak bëgg a bokk te du mën a sotti moo tax indi nga ci leeral yu bari ci Cheikh Ahmadou Bamba bi la njëkk indi mooy ixlaas te ixlaas doon loo xam ni lu am solo la ndax ixlaas ku mu xas nekk sa dënn foog nga teg sa tànk ci siraatul mustaqim te siraatul mustaqim dafa am solo heureusement conférence bi sedd nañu ko man gis naa ni yaayoo nañu def ci diraasa bu baax a baax qaidatun li diraasa ñëpp mën nañ ci jëriñu ñëpp laa wax ñu jàng ak ñu jàngul mais rawatina ñu jàng parce que leeral na lu bëri loo xam dañ ko doon romb rek liñ naan al islam diinun wa dawla sëñ Tuubaa moo ko indi moo ko leeral ndax boo jàngee matlabul fawzayni ci suñu xam-xam bu gàtt di nga ci gis ne traité na mboolem loo xam ni problème la bu jëm ci dundu doomu aadama nga xam ni doomu aadama bi bu déggee matlabul fawzayni mën na jëriñu ci diineem jëriñu ci àddinaam te ngor du ko jam diine du ko jam nga seet tasawudu siraar ndax dañ ne askan wu la gën ay ndaw moo la gën ay mag askan wu la gën ay ndaw moo la gën avenir ndax ndaw ñi ñoo fi mujj mu préparé ci ndaw ñi wan leen seen bopp wan leen fi war a jaar wan leen fi ñu war a aw laa tashtari dunya bi uxra ya fata man baa nuuran bi duja fa sa yandamu te loolu li ngi mel ne jamono ji moo taxal mu koy wax waaye jamono jamono yëpp la loolu maaseel ndaw ñi dañu jara yar jara formé jara yee ñu gëm yàlla topp seen diine topp seen wayjur am jom liggéey développement soog a mën a am ndax daje bii tey doo ko gis fekk fu ko fii julli yëpp daje kër gi yëpp daje borom xam-xam yëpp daje ñu bëgg ñëw bokk daje fii ñëw ñu raay kenn wala pour neexal kenn wala pour bëgg ci kenn dara déedéet dañoo ñëw pour boole seen bopp ak it li fi sëñ Touba liggéey ñu wone ne gëm nañu ko bëgg nañu ko parce que njëriñ la pour ñëpp lii moom la bëggoon ba tax mu digle màggal gi kon loolu alhamdulilah rabbil alamina am na tey ñu ñaan yàlla mu sax te dëgër maam alxaaj génn àdduna différence bi juróom-ñeenti fan la sëriñ Mbàkke bu fa bind xasiida jooy alaaji Abdoulaye Niass jooy Cheikhul Haaji Malik lii la wax yaa salmatan fi diinina al islaami min qalci qarnay hammati al islaami shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata fa bakal wara li takaadufi al azlaami waa malikan li sunnati al garaa'i وللضعفاء والأيتام ما ليس غيل مثل عبد الله ma taxaw Mbàkke Buso ba muy tagg Cheikhul Haaji Malick di tagg ala di tagg Alaaji Abdoulaye Niass daf ne waa Malick li sunna dégg nga kon sunna commencé wul quatre-vingt dem fii ñëw démb ne mag ñi nekkuñ ci sunna ñu ne ma da ngay sànni xeer man a damay delloo. tabatan li sunnati lgaraayi la waxoon wali doofaayi wal aytaami loolu yoon woowu la leen mbàkke bu sa la mbàkke bu sa taggoon ma ne te mbàkke bu sa ba muy tagg alaaji Abdoulaye Niass di jooyi Cheikh El Hadji boobu sëriñ ma ngi fi woon kilifaam kilifaam mi ngi fi woon tey muy Cheikh Amadou Bamba mënoon ko tere mais terewu ko loolu laa bëgg a wax dama ne ku ci gisati lu baax ci sëñ Tuubaa koy wax dama ne réussite bi mouridisme am nga xam ne yàlla ñoom rekk la ko jox joxu ko keneen loolu mayit sëñ Tuuba man maa ko wax ndax masaalikul jinaan sëñ bi ñu ko bind à l'âge de quatorze ans dama ci def recherche de quatorze ans xale bu ko am mën a koo boo teree alquran ñoo nanga mën a koo jëriñ dara sëñ mu fekk problème d'actuel boo xam ne ñii naan ñoo ko moom ñii naan tariqa yi ñoo ko moom kii naan kee bokkut kee naan kee bokkut mu ñëw indi solution permanente wa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawaun intama ila aljaylani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qatan ala sawab sëñ Fallu mu ne Cheikh euh, euh, Seydou Nour yow yaa dekkal Cheikh Omar yal na la yàlla may wér ak fan yu gudd ñaan boobu topp na Seydou Nourou ndax Seydou Nourou am na téeméeri at ak fukk ak juróom-benn suñu digg sama diggante so suñu waajur Thierno Mountaga Tall ak Serigne Saliou xam nañ ni tamit at bu nekk. xarum tabaski sëñ Saliou moo ko doon jox Thierno Mountaga ba sinistre yi bi fi bi fi Thierno Mountaga wootee pour ndimbal ci lu jëm ci sinistre yi sëñ Saliou nee na Thierno Mountaga saa yu wootee jullit euh, euh, kilifa diine yëpp ñoom la wooteel chegu 10 millions la ko joxoon pour mu tàmbalee loolu donc dañu ñëw fii pour feddali wëllë wëllëre boobu. di doxoon diggante suñuy waajur yi ba fii defe naa ni kon moom ba mu ñëwee la seex bu kunta wax ginnaawam ba mu ñëwee moom la dëggal kon mag ñi kon naka jekk seen dund dañ koo ànd di ko rafetal lu ci waay nekk sa moroom nekk ca bokku ca ak moom kon boog ñu ngi rafetlu jotaay bi di rafetlu conférence bi liñ ci mën a wax bari na waaye gàttal gi nu sàkku rek ñu gàttal ndax ñépp xaj ci nasalu allaha subhanahu wa taala an yajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck di xalifa général Tidiane de Thiénaba di yëkkati nuyoo bi di ci jiital Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbakke moom mi nga xam ni moo fi Serigne Touba ci jamono ji te di ko ñaanal sëriñ Touba mu fi masa jaar ndam lu ci am sëriñ Touba am yàlla na koy yàlla jox ndam boo xam ne ëpp booba ndax boo ko yàlla joxee ndam boo xam ne dafa ëpp ndam yi fi jiitu woon day doon ñaan gu nangu ci ñi fi jiitu woon ndax ñoom ñoo ko jaboote te ñoo doon liggéeyal yàlla fii te ñoo doon ñaan di ñaan nag ba am doom baa sëpp boo xam ne bii ab liggéeyam weesu na fa nga tolloon loolu kenn ku ne moom ngay ñaan ci sa dono te ñu ngi ñaan yàlla fekk na ci ñaan googu yàlla nangul na ko ñuy sant yàlla di sant conférencier bi ndax bu fekkee da delloo sab gis-gis ci mag ñi nga xool ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ni bis bi mooy ki ko sabab nga gis ni mu doon liggéeyale yàlla ak fa mu tegoon tànkam ak jubluwaay ya nekkoon ca moom ak mébét yu mag yi ak fi jamono toll léegi ak ni mbir yi di soppi <coughs> di soppi ko kon bu conférencier bi dellusee fopp liggéeyub démb bi nga xam ni mooy dëgg dëgg mbir yi tegaat ko ci kanamu jaam yi leeralaat ko ba mu leer naññ ba kenn ko ne xam ni mbir yi nii la du neneen loolu ñu ngi ko ci sant ñuy sant yàlla di jëlaat lépp nag di ko delloowaat Sëriñ Tuubaa ndax euh, jotaay bii jotaay bu historique la jotaay la boo xam ni dama wax sànq oustaz Alioune sàll ni ko jamono daf ko soxla réew mi soxla ko jullit yi soxla ko taalibe yi soxla ko àdduna bi itam soxla ko te mooy ju jokkoog jullit yi ñu nekk benn jamono lañu toll boo xam ne crise daf ci am boo xam ni ixtilaafaat la indi yu bare ci nit ñi ci société yi ci jullit yi ci ci secte yi ci lépp waaye suñu maam ji ci njàmbaaram ak mbaaxam ak ñaan yàllaam gu nangu bu ñu dawee jamono ba tey jii benn mag nettali na ma muy sama maam El Hadj Ahmed mag mu daan toog ci moom ñu di ko wax góor gi Amadou Lo Ndongo Serigne tubaab moo ko yar. nee na def ko masa wax ni ko euh, ci tuubaa gi sëriñ tuubaa def fi mas yendu fii ci barabam bii nee na ca jotaay ba ñu toog genn góor gu ñuy wax malay moo ñëw ci moom toog dendeek moom am benn taalibe bu ñëw indi alal ju bari nee na ñëw jox ko Serigne Touba nee bi mu ñëwee jox ko Serigne Touba Serigne Touba ne ko teg nii nee na mu teg ko jébbulu waxtaan moom ba noppi mu ne ko mëlay mu ne mu ne ko jëlal alal ji nga yóbbu ko ba fële nga gas ko suul ko nee na mu jël alal ji dem tolloog barabu sëriñ Touba bi mu gas ko foofa suul ko fa dellu siwaat nee sëriñ Serigne ne ko mëlay mu ne mu ne ko ana ana foo def alal ji mu ne ko mbàkke maa ngi ko denc fële mu ne ko demal nga jël ko nga yóbbu ko ba ca gannaaw nga denc ko fa nee na mu ñëw jëlaat ko sulli ko jël ko nag yóbbu ko ca armeel ya nee na gas ko foofa suul ko fa dellu siwaat nee na Serigne Touba jàpp ci loxo góor gi mëlay ànd ak moom ñëw ba ca pax ma ne ko mëlay mu ne waaw ah, mu ne ko ndax seede nga ne pax mii ëllëg ci lay tàggoog yéen ci pax mii ci lay tàggoog yéen pax mii yàlla def na ci dëgg fii la ma tubaab bi jële woon yóbbu ma bitim réew fii la ma tubaab bi jële woon tàggale ma ak sama njaboot fii la ma tubaab bi jële woon xañ ma samay taalibe fii la ma tubaab bi jële woon ne dañ ma bëgg a sànq bëgg maa tàggaleeg sama réew ngir ne ñu ngi ma yóbbu sànki ma waaye ma dem dellu siwaat ca afawtu an il aqdaai turan li waji man nafaahum xayru sarmadan lastu adaafu ñoo ngi sant bu baax xam naa bu nu fi àggee ñëw daan bari xam-xam nun ñëpp ndax ni rawdu riyaahin di def saa bu nu ñëwee nu jox ñu tem bu am solo yóbbal ñu téer nu yóbbu nu yër ba dellusiwaat bu yàggee la noom am xam-xam te it sëñ Muntaxa Jatara ni mu ko tuddee léegi wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami danañu tax nu sawar ñu ñëpp ci jàng man nag xam naa ma wax ci turu jamaat jamaat wala ba xarak islaamiya dina ma neex lool waaye man bi nga tollee ci wàllu aj bëggoon naa doomi soxna yi raw rawdu rayaaxiin daje yi ñuy daje nu bàyyi xel bu baax ci tomb boobu nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko ci aj ak njëriñal aj yeeg ñu war a toppatoo aj nañuy absente ci aj ga ndax ñi fiy jëlee nit di leen yóbbu kat dem leen di yóbbu leen bu ñibbisi jotee ñu andi leen ñu ñibbisi waaye aju ñu man la ma fekk si dug aj dem makk ak ñëw dong la ar-rakbu kathir wal hajju xalil gis naa fa ñoo xam ne di mu ñu Arafa demoon màkk billaahi gis naa fa ñoo xam ne tawaafuñ tawaaful tawaaful ifaada lundi bu ñuy sànni jabar la ñu réer lundi mardi mercredi jeudi ca 17 heures 30 laa leen for sëriñ bi loolu ñu junj ci waxtaan wi ah ci bàyyi xel ay doomi soxna nekk ci tànt bi ñu bàyyi xel ci loolu suñ ko bàyyi nii bu ëllëg suñu borom dana nu ko laaj kat maa lakum laa tanaasaruun kon nag loolu jar naa bàyyi xel man di bi nga ko tuddee sama yaram daw na lool bi nga ñëwee ci liy benn la nit ñi man de waxtaan yu ma gën a sawar di ko fekke ginnaaw polygamie ginnaaw polygamie waxtaan yu ma gën a sawar ci di ko fekke mooy liy benn la julli di waxtaan yépp nag fekke polygamie moomu ci gënal waaye ginnaaw ga mooy luy benn la julli di ndax man samay waxtaan ci rajo ak samay waxtaan ci télé lépp. du ma aj sama mbagg ci yëg ne wax jii diwa ko waxoon naa ko waxaat ni moo ko waxoon ne yàlla na ko yàlla yokku wér loolu li ma ci bëgg du dara lu dul wan doomi soxna yëpp ne la may wax du samay wax du lu ma moom maag doomi soxna yëpp ko bokk lii ngeen nuy woo dey nan sawar nun ñëpp ci wuy si leen ci suñu suñuy mbubbi tiitaru suñu suñu buuy bakkan sama sama sama mbubb yëpp fas yéene roy ci mag nu baax ñii is kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida waaye du ma du ma jeexal mukk te bi may foyete liir xajagu fi sëriñ bi wax ne boo toogee ci ku ñuy waxub sëriñ di ko wax doomi soxna boo ko bëggee natt ba xam sëriñ laam doomi soxna laam déet tuddal doomi soxna ni moom ci wetam boo bëggee xam ki nga toogal ndax mi soxna laam déet wala sëriñ la tuddal doomi soxna ci wetam toog ba mu yàgg rek nga ne ko tabarkàlla sëriñ saam bu sa ku baax la ne cel bu ne la ah yeewu na rek jëlal say dara te dem bu ne la ah yër na tuuti rek jëlal see daal te dem waaye bu la ay waay ndaw ku baax ak sell ak yiw ak bëri xam-xam keroog àjjuma ci jumaa ji avant ñuy julli moo doon waxtaan waxtaan wu sell wa Sëriñ Tuubaa nee na toogal bokk yi di ndokkale lool suma bopp ci daje bii yàlla may ma tey ma daje ci barab bu tedd bii ci teewaayu ñu bëgg lu baax ñii jotaay bu nu mel ci makkaan bu nu mel ci guddi gu nu mel ci weer wu nu mel di ci fàttaliku ku mel ni ki ñu ci fàttaliku muy xaadimul Moustapha dama ne ku am lii dangaa war a sant yàlla ba ilaa yawmi diin ku am fekkee lii te nag cey bii daje muy mbooloo amul sikk ci ne ku ne mbooleem li baax ci mu umm, ummatu Muhammad ñu ngi leen toogal ci mbo ci ndaje mi ku fi ne te li baax ci ummatu Muhammad du la weddi xam-xam diine ngor moytu lu baax bëgg a lu baax mu gën a baax bëgg a defar lu bon mu baax ak mu gën a baax ngir lan du pour moom di moom xam na ne léegi mu jóge fi waaye ngir génération montant loolee nag ak ndono la ku yàlla may nga doon na lu ni mel nga jëlee ko ci ku mel ni ki tax mu daje fi tey di fàttali ko jëfam ji màgg yi muy xaadimu Mustapha dama ne fekk ko di pexe moo ko mën a maye du bëri bokk it moo ko mën a maye du bëri alal moo ko mën a maye waaye daal jàpp naa ne dogalu borom bi rek la yàlla na ku mu bëggal ndam nga am ko yàlla ku mu bëggal ndam nga am ko ku ko fekkee tey rek war ngaa gën a sant borom bi te xam ne yàlla moo la bëggal ndam bokk jullit yi ay kàddu kóllëre lañ ma dénk ni naa ko indi niñ koy jottalee at mu jot mu kóllëre gu xaw a particulière nag ndax diggante cheikh na cheikh Saadu la ak cheikhul Xadim muy ñaari jëmm yoo xam ni mosu ñoo daje ni royal ay ni mu chefatan mosu ñoo gisante Touba mosu ñoo gisante Ndakaaru mosu ñoo gisante Nimsaat mosu ñoo gisante fenn ci kaw suuf. waaye doy na ci kóllëre gu yàlla nangu ni dégguma fenn ci nenn ku bind ci baatin ak may yàlla jox xaadima rasul xaadima rasul bind ci baatin ak may yàlla tontu la waxuma amul nag de mais dégguma ko surtout ñu demee nii ndax kàddu yii maag képp koo xam ne kii cheikh na cheikh Saad bu defar na sa maam ci diggante Sénégal Mauritanie Gambie Guinée ñoo ko bokk ci ginnaaw cheikh na Ahmed dara xalifa cheikh na cheikh Saad bu cheikh Abdoul Aziz xalifa cheikh na cheikh Saad bu teewaay bi ñu teew it par ñu teew ndax woote benn toll. lakin unaadi kullal bilaadi ah moo tax maadinuhu ajlatu minhu nasaara fa asbaxa fi tilka albuxuuri nudaara ومن صدف البحر المحيط بدا فمن تلؤلؤ فيه العيون حيارا وعشب لكيميا امتحان غدا مدار الورى ياقتة لا تبارى وبدر منير غاب في الغرب ثم لاح من الغرب شمسا رفعة وانتشارا lii Cheikh la Cheikh Sadbu moo ko seede ci ñëw Serigne Touba ba muy dem weer la waaye ba mu ñëw jant la tiim na ñëpp kenn mënu ci dara waaye ci dëgëru alaaka bi ak wane ne yàlla kese la raa boobu la Serigne Touba ñu cas ne radadna ila man situ qabla daara wa fi xiini taslimi yunawiru daara salaamun ala saadin saidin mubajalin yukarimu alqaasi wa man kaana jaara salaamun ala cheikhi suyuxi ladi lahu maqaamun rafiun wa huwa laysa yubaara aya cheikhu xud minni jawaban yadullukum ala sadqikum falfardu laysa yubaara lii relation yàlla kese kot képp dong rek mënu ko romb fenn ci turu sëriñ Isxaaqa mi nga xam ne mooy sunu kilifa te mel na ne moom ubbi woon na waaye tëjoon na sëriñ Ahmadu dafa bëgg lu rafet rek waaye li sëriñ Isxaaqa waxoon ñun ñëpp dugg nañ ci kon nag maa ngi jégalu kàddu yi ndax waruma jataay bi moo ko laaj ngir rafetal kon maa ngi delloo am nuyoo ni ñu ko waxee duuf rahmaan yi wa isaa xujiitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha kon nag lu toll ne li fi wax ci lu rafet lépp lu ko ful delloowaat nañ leen ko ci nam gën a rafete nam gën a yelleeg yéen ak seen maqaama ak seen daraja ñu ngi ñaanal ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul Amin Baara yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mottali yéene ay waajuram yépp te fe te fekke ko te ànd ko moom ci daraja Serigne Touba wa axrina bi xubbi kulli muslimi wa najjinaa min sharri kulli mujrimin ñu defee ne foofa lay yem mu weesu doomu aadama ne yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al yaa haadiyan rada kon kooku taxawaay bi mu taxaw ci mbir yi buñ demee ba fayee ko lii lislaam jëpp àndandoo daje ci loxoom loolu yàlla moo ko ko fayee ab liggéeyam la bis tey kon nag ngeen ñëw seen kër ndax alaaqa bi am ci diggante tariqa murid yi ak tijaaniya lu yàgg yàgg la am na ci yoo xam ne sax ñu si bari ump na leen fii ci Touba gii Serigne Bara Niang ak sëñ Mbàkke bu sa ñoo bokk ndey ak baay kenn ëpp ko cër ci tubaa soxna su mas a yor Serigne tubaa ko ko jox doom ju mas a am Serigne Touba joxe tur te am na doom ju mu tudd si Ahmad Tijaani danaa leen ci nettali lu gën a yéeme loolu bi Serigne bi demee ci géej gi. ñetti at yu jëkk yëpp Cheikh Ibra Ndar la nekk mu taxoon mu dem Ndar bëgg tam tàmbali négocier ak tubaab bi ne di ko neexal di jubóog moom ngir mën a def politique ba sëñ bi ñu sax gam fa sax daana def bu dajalee xar yu mu bëgg a defar ba mu baax mu def koy seel yónnee ko sëñ bi ci géej gi day dem ba seet El Hadj ba gis ko ne si damaa xam sa digg ak sa mbokk ma ni mu la fonke ak ni ngeen bëggantee ma bëgg lii jëm ci moom nga rendil ma ko ci sa loxo bii ma door koo defar ba mu baax ma yónnee koo ko wax ko ne ko yaa ko defar xam naa ne bu ma ko waxee dana ci am mbégte te mbégteem rek lay loolu ku leen wax ne boobu àllaax am na du ko mën a gëm te loola yimut ci diggante boobu dafa continuer di wéy ci njaboot gi ba ci doom yi sëñ Mudu Mustafaa doomam gi jigéen ñi am na ci koo xam ne bi ñu koy yóbbu di ko jox sëriñ Omar Fall Batour pil la jëm rek Tiwaawan soriwul daf ne doomi Sëriñ Tuubaa yëpp bàyyiluwuma leen ko ndegem pil la jëm boo demee sëñ Babacar Si laa la bàyyi nañ ko koy jox loo ma war a laaj man mi sa bàyyi laaj ko ko loo may laaj ci ndigal na ko ko laaj kon defar fi la jëkke te kuy defar mun ngay dimbale na ngeen xam ne ak bennoo ki koy wootee day fekk mu nekk ca noonu kenn ku ci yéen xamee wuñ la ak suñ jëmm bopp sëriñ bi ne wal tuqi lil musliha fii yeddi wa fii daari wa sabbitanu bil haadil wa fii jàpp ne na muslix boobu nag mooy raw dora axin mi Touba nag